mbokk yi ñi teewlu ci seen canal youtube doomu tayba ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara macha allah di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam tawfiq ak siir ci weer wi nga xamee ne moom la ñu ne muy weeru gàmmu nga xam ne weer wi yépp feet la waxtu yi ci nekk yépp feet la ba jullit bi war nay profito di ci baalu suñ borom waaye di ci eh, andi ay salaatu ala nabi kemtulaay kàttanam weer la woo xamee ne suñ borom subhaanahu wa taala nee na nañ ko feetal gis na wax ne gàmmu la ma ne gàmmu du sunna de waaye farata la ndax suñ borom subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamee ne moom moo njëkk a gàmmu digali malakam ñu gamu ñi gëm yàlla ñéppit mu digal leen ñu gamu ba tax na doomi adama bi giru dundam su fekke ne gamu ci ben yoon lu mu tuti tuti mën am bu adina mu tassante mbugalup suñ borom subhanahu wa taala demal ci suratul ahzab yi muy surat numero 33 so demé ci aya 56 di nga fekk buur di wax naan inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi yaa ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima buur di wax naan man yàlla dey ak i samay malaaka ñu ngi gàmmoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tagg ay jikkoom waaye bëgg doomi aadama yépp xam maqaama bi nga xamee ne moom la yore fi man kon nag yéen ñi gëm yàlla gàmmo leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa te ngeen ñaanal xeetam bi ab mucc gis nga inna allaha wa malaikatahu yusalluuna doo wax mukk ñu ngi julli xam nga yàlla nan lay jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nan la ñuy jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy ñu tagg ko ekati li nga xamé ne mom moy turam mom la kat bi di wax nan wa dammal ilahu isma nabi ila ismihi iza qala fil al muazzani ashhadu ba bu nit ki di dugg ci diine lislaam bu ne ashhadu an la ilaha illa allah faw da ci teg ashhadu anna muhammadan rasulullah sudul dul loolu duggagul ci l'islam bu nit ki di liqam bu nit ki di noddu bu nit kii di wër ba gi demet demet ashhadu an laa ilaha illallah foo ko waxee rek di nga seede ne yonent bi suñ borom subhanahu wa taala moo ko yónni loolu mooy gàmmo moo tax suñ borom subhanahu wa taala ne man yàlla day ak i samay malaaka ñu ngi gàmmo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen ñi gëm yàlla na ngeen ci moom kon kii wax naan gàmmo bidaa la wala gàmmo dafa xaraam mom damay ragal ne dina tassante ak safan ndax dafa weddi li alquran wax neena naa la demal ci surat numéro 33 aye numéro 56 ding fa fek suñ borom nan mom mu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nak biral ko ci bir alquran wa innaka la'ala qulqin azim burne yow yonent bi mala tanali baye mala tanali mam maam waye ci jikko la lay tag ndax loolu moy gamo mané yow dal yow yaay borom jikko yu mag yi yow yaay borom jikko yu kaw yi motax serigne touba khadim rasoul radiyallahu anhu mune jinante bobu nga xamé ni mune yonente bobu nga xamé ni mom la suñ borom subhanahu wa taala digal ñu ñu gamo ci mom koku nabiyun lahu sha'nun azimun mubayyanu huwa almustafa almuxtaaru wa huwa almuayyanu mu ne yonente boobu day ku ñu solo la koo xamee ni mbiram dafa màgg lool fa suñ borom subhaanahu wa taala yonente boobu mooy ki nga xamee ne dañ ko ràññee yonente boobu mooy ki ñu tànn ci kaw asamaan mu gën ñëpp ñu tànn ko ci kaw suuf mu gën ñëpp kooku daal mooy ki nga xamee ne moom mooy xayrul basari sëñ Tuubaa ne nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidi xalilun xabibun mithluhu sa yu'lanu mu ne kooku yàlla di wax ku ñu solo la ab yonente la moo gën ci képp koo xamee ne jàmm suñ borom nga subhaanahu wa taala képp kuy sang rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa sang sëñ Tuubaa mu ne kii mooy xaritu yàlla bi kii mooy soppeeb suñ borom bi ku mel ni moom amut te mësta am te du mësa feeñ fii ci kaw àddina moo tax yàlla wax ne yéen julli bi dangeen a am xéewal ma jox leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal leen na ngeen gàmm ci moom ndax gàmm goo gàmm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njombe boo mën a def yowmal xiyaam say tiyaaba gàmmoo kenn du ko fayee bor moo tax képp ku gàmm ci yonent bi rek da ngay daal di taxe buur wax ci sotu Ali amran muy suurat numéro 3 soo demee ci aaya numéro 164 buur ne laqat mën na laahu ala almuminina id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubinin yàlla mu ne yéen jullit yi day da ngeen am chance lool ma yónni ab yónente boo xamee ne ci yéen la bokk du jinne du malaaka dëkkaloowuma ko ci géej gi dëkkaloowuma ko ci kaw asamaan si dëkkaloowuma ko ci biir suuf si waaye ci kaw suuf si laa ko dëkkal muy dund ak yéen di leen jàngal aaya suñ borom yi di leen waar xamal leen luy dëgg ak luy caaxaan xamal leen luy sagesse ba keroog ginnaawam ngeen mën di continuer di nettali loolu loolu daal di nekk gàmmo moytu leen nag ngeen bokk ci gaa yi nga xamee ni dañoo réer gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du morom te ñépp xam nañ ne du morom ku dul morom nag faw muy am loo xamee ne dafa spécial moo tax buur ne yow yonent bi waxal gaa yi ne yow de mbindeef nga waaye meloo ni ñoom yow dañuy wax yu jëmale ko ci yow ngay woote ne amul benn buur bu ñu war a jaamu kuddul yàlla képp koo xamee nag yaakaar ne tasante ak suñ borom subhanahu wa taala nay gàmmo di tagg eh, say jikko di wax say maqaama ndax ñeneen ñi mën cee jëriñu te mu bañ nag di bokkaale suñ borom subhaanahu wa taala demal ci suratul kahfi aaye numéro 110 mooy aaye ca mujj mooy surat numéro 18 yàllaa ngi wax naan qul innama ana basharun mithlukum yuuxaa ilayya annama ilahukum ilahun waxid fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada moo tax Baay Ñas wax ne yonent boobu de muhammadun basharun walaysa kal bashari sirfi lxaqiqi wa rabbi taaha sammaahu mu ne muhammad moomu sallallahu alayhi wa sallam di sangu-sang yi nit la day waaye du nit ordinaire comme ñun nit la koo xamee ne suñ borom subhaanahu wa taala daf ko def mu spécial koo xamee ne suñ borom taaha la ko tuddee ci alqur'an bayne al ajwadul karami ibnul ajwadul karami ibnul ajwadul karami ibnul ajwadul karami ki moy doomu ku tedd ku bax ki doomu tedd ku tedd ku bax ki sëtu ku tedd ku bax ki ba kero ngay egg ci adam alayhi salatu wassalam bayne ne baraya habibillah markazina mawal masakin min urbin wa min ajami mu ko kooku day moy sang sang yi mooy ngeen gi mbindéef mooy soppeeb suñu borom bi ñun dey mooy suñu référence mooy suñu delluwaay kii dey miskin yépp ci moom lañuy tàpp waaye miskinu arab ak ku nekkul arab gisa wax naa la ne moom yàlla ko tànnal ay baay moo tax muhammad abdullahi ko jur abdul mutalib hashim abdul manaf qusay kilaab murra kaab lu'i ghalib فهر مالك ندر كنانا خزيمة مدركة إلياس مدر نزار معد عدنان لي نيو امام يونتبي صلى الله عليه وسلم دي نيار فوكو مورا سوني الحاج مالك تنكل لكو ني محمد نور عبد الله شيبة هاشم وعبد مناف مع قصيهم كلاب مرة كعب ولؤي وغالب وفهر ومالك نضر الكلام سمام الحاج مالك رضي الله عنه نه كنانة وخزيمة ومدركة إلياس مع مدر الحمراء سرهم سمام الحاج مالك برم بارسولبا برم تواوان نعدت نزارا معدا ومن يجاوز عدنانا فتكذيبه قد جاء من العلم من العالم nga gis mu tënkal loolu nena nak ki mom moy mooy bi sallallahu alayhi wa suñ mam Serigne Touba khadim rasul radiallahu anhu ke julli ca géej ga lépp ànd ak tawfiixu suñ borom subhanahu wa taala borom magaluk Touba gi bàyyi Serigne Fallou bàyyi serigne Mouhamadul mustafa bàyyi Serigne Saliou bàyyi serigne muntaka déggal mune faman yu'azzim mawlida nabiyina باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترما وعزمي suñ maam Serigne Touba mu ne képp koo xamee ne màggal na guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku yowmal qiyam tapis rouge lañ koy jaarale du peese ay bagage du jéggi siraat kooku directement lay dem àjjana bu gaa yi peese gaa yi jéggi siraat bu ñëwee dañuy fekk ñoom ña nga farankulaayu biir àjjana te jaaxaan moo tax suñu maam alxaaji Malick si radiallahu anhu ne taazimuhu wala suñu maam sëñ Tuubaa ba tey mu ne taazimuhu bi sunnati yaquuduna ilal jannati mu ko nag ci sunna loolu mooy sa caabi directement sa laisser passer jëm ci àjjana mooy astaghfirullah la ilaha illallah salatu ala nabi jàng alquran lii boo ci saxee faw da ngay daal di màggal ko ci sunna moo tax suñu maam alxaaji Malik ne allah azimu layla alwiladati hasbatan iza lam yakun naxwal xaraami adulu mu ne waay waay màggal leen guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne nag jengoo leen dem ci lu xaraam boo ni ko màggalee rek da ngeen dem ajjana kon daal màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farata la waxuma sunna de dama ne farata la màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te képp ku ko màggal jàppal ne décroché nga sa laissez-passer pour jëm ajjana yàlla yàlla def suñu dégg ak topp def ko ci yéen yàlla yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp mu wan ñu ay caaxaan bañ xam ne li caaxaan la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu